nga doon wax nit ku weex ñu bëri nañ dugal seen loxo ci réewum Sénégal. est-ce que tey Juan Branco bu fi dekkoon ba léegi. Mm-hmm. man amoon na ay sources dañ ne ma waa Barreau de Paris dañoo nar a ñëw. Mm-hmm. Ousmane kii buñ ko téewoon fii benn bis Juan Branco français yi dañu wàcc Sénégal te dañuy exécuter directement pour ñu bàyyi ko. Mm-hmm. parce que boo ne koy def mandat d'arrêt international ku dëkkul sa réew noo koy defee mandat d'arrêt international parce que kooku mënoo téye passeport espagnolo mhm. français la donc kooku mënoo koo jàpp mënoo mhm. koo téye te mu ngi exercer métier boo xam ne avocat la du terroriste sàccul deful dara mhm. donc comme client moom néew na dool ci biir réewam ñëw na ñu naan laam-laamee dëgg la wala dëgg dem na dox soxlaan ci biir réew mi dem na jaale yenn famille dem na dox ñëw dox dox dox dox doonu dama la doon bàyyi nga dem puisque ci bàyyi la rek laay mujj mooy li may wax rek lu la leer ne lii shérif ci ci waxtaan lay mujj nañ ko mhm. jëkkee mhm. nañ ko jëkkee ñu trouver terrain d'entente ñu xool nan la ñuy def fii tam am am mhm. boo xam ne day sax ba faaw wala continuité da ngay continuer amut état continuité la loo tàmbalee danga koy wàcc sa moroom eggali donc tey ñibbeem bi dafa dina jeexital bu négatif wala ci ci ay tolluwaayu Sénégal moom ci côté day am jeexital bu positif ci li mu bëggoon d'accord xuraan man ko xale bu ndaw la bu juddoogul mën na am jeexital boo xam ne bu positif ci côté am parce que li mu doon ut ci liggéeyam di ko wër li desoon dernière mission mooy dugg prison sénégalais découvrir lan mooy fa nekk découvrir ñoom lan la ñuy dund ak nan la ñuy téye ñun suñuy prisonnier moom loolu moo desoon ci mission lu mu waroon ut te dafa mel ni moom dafa nax sénégalais yi ba am li mu bëgg. mun nañ ko ah, genre découverte genre jàng. dem sur le terrain waaw la parce que ñëw na la jàpp ma. Chérif ki ñëw na la jàpp ma. ah jàpp ba am na lu mu ci namm. Mhm. du dëgg. effectivement ci dem ba ne la jàpp ma moom mhm. xam na ni boo ko jàppee doo ko téye parce que am na fu mu toog wéer wéeruwaayam dafa dëgër. sénégalais lañ mën a jàpp yóbbu leen prison mais xawaan buñ ko buñ ko buñ ko bàyyee fii nii semaine wala ñu bàyyi ko ñetti fan yoo xam ne jénnewu ko Sénégal dugg ci guuta mhm. parce que deetul nekk junni neen ñooy xeex ndax tubaab bi moom buñ ci duggee moom Dakar bi forox toll. kon am na ci yoo xamante ni buñ ko sàkku buñ ko sàkku ci biir réew. warul am ci réew te war se waruñ koo sékkat doomu bitim réew parce que lu mu gàtt gàtt ñun français bi moo ñu colonisé ci waam la ñuy dox ci déedéet tam la ñuy dox tamit. d'accord parce que bi ñu ko bàyyee am na ñu bëri doon wax naan nationalité sénégalaise daanaka booy xool valeur bi day des ndax bu doon beneen dëkk la nga dem fa tey sénégalais ñu jàpp la xëy na taxawaay bi ñu taxawoo seen doom Juan Branco ñun bu ñu demoon beneen dëkk pour ñu am ko day jafe. Mhm. doomu sénégalais bi day tumuranki bitim réew mais du gis ku ko taxaw man damay wax ak waa bitim réew mhm. chérif chaque jour mhm. xam nga nit looy loolu loolu mën a wax mooy loo xamul mais looy xam ne ay doomi doomi aadama dañuy wax ak yow dañuy jokkook ak yow di jànkonte ak yow ci ñoom nu ñuy dund nga nekk ci bitim réew tumuranki fa sonn fa bala ñoo intervenir tey kaawu mbayeg mi ngi ne la maye tàmbale Dubaay waaw mara maye mm-hmm. tey ñu ngi koy masaw di masaw famille Jóob yëpp yi nga xamante ni ñu ngi dëkk caaro ji dëkk ji kaw mm-hmm. parce que lu may wax lu ma xam la xale bi dama koo xam mm-hmm. ndax man lu mu gàtt-gàtt ji da kaaga caaro am naa fa ay mbokk fa laa jóge kon su ma ñëwee war a mën a wax loolu mën naa cee wax parce que man du ma wax lu ma xamul xale bi yàgg na fa dafa demoon daani dooleem nit ku fu nattu du am mooy li may wax ak Chérif nit di am nattu boo xam ne xamoo fa ngay jëm lan nga fay fekki moo tax nit ngay yër say mbir di ko xool bala ngay dem fenn dafa baax mhm. parce que bu la leeree na fa nga jëm loolu nga fay fekki doo fa dem mhm. mais dem na nekk xale bu tuuti mbayang xale la de shérif d'accord nga dem wàcc fi doom bu tuuti boo xamante ni moom nga fi bàyyi nga dem di wuti sa wërsëg far fa nga demee wuti sa wërsëg ndog ndog dal la fa mhm. moo tax kasa jombul kenn tey ci loxol yàlla rek la nekk dañ koy ñaanal yàlla prison boobu yàlla na ci mucc ak bakkan yàlla teg ci moom loxo ba xëy na famille bi nga xamante ni tey tooñ nañ ko ba pare tëj nañ ko parce que tey bu kooku amuloon intention rey ko. Mhm. moom intention rey kooku. tey heure bi kenn waxatu ko exécuté nañ ko parce que ñoom dañuy doxal charia. Mhm. parce que bu demee ba borom borom këru kooku xam ne ndaw si moo ko bëggoon a rey moom mu rey ko donc am na ci yoo xam ne bu demee ba ñëw. dañuy nee ne dañuy déglu xale yi ba ñu màgg ñu laaj leen seen avis lan la kii te yàlla na fekk na mu doon xel mu rafet. Mhm. mu doon ku ñuy rey. yàlla na ko yàlla taxaw teg ko loxo mhm. ci bat Seydou muy lu triste ah Mbaye li ko dal. waaw Mbaye xale bu ndaw la ma ne ñun caaro la ñu dëkkoon sama koñu kër yaay mhm. Mbaye fa la dëkk pour ma dem kër Mbaye jóge ci benn kër jàdd pour dem seen kër la Mbaye xale bu ndaw la tey waajuram bu góor génn na àdduna ci ginnaawam du dëgg kon nit boo demee si bitim réew tey am fa gàllankoor liggéey yóbbu woon fa mhm. xëy na la nga doon doxi sax xëy na yaakaaroon ne woon boo demee façon liggéey boobu nga fay fekk Chérif mhm. naxaate bi bëri na lool waaw ndog ndog waa dañuy nax ay nit ba pare selon ni ñuy voyager dañ leen ciy nax ñu dem bu ñu demee parfois yow da ngay ñëw ne damaa bëgg dem tukki ñu jël say dossier ne la mën naa la ko topp tool dem dugg fii moo tax sénégalais tam dafa naïf mhm. nga dem tukki ci anam boobu Chérif dem nga ne ital laa ji ñu yóbbu la Arabie Saoudite nga ne cëpp waaj mhm. ñu jël sa passeport confisqué ko jamono ji moom jël nañ tukki bi am na yoon bu nu bees bu nu jël Nicaragua waaw yoonu Nicaragua pour dem Maroc bi aussi itam mais yooyu sax mën wax ne yaay dem sa coobare bopp mais mhm. imagine jigéen bu ñëw ñu la recrutement la kat dama lay wutal liggéey dangay dem donc kii wër ah ku ku kuy na lekk caakri kay boo gisee ngelaw da ngay ŋaan mhm. dégg nga chérif mhm. nga dem ñu ne dama lay wutal da ngaa dal naa ci mhm. nga dem tey dañ koy def Cameroun ne bépp africain def nañ leen ko parce que dañu am ñoo xam ne ñoom loolu mooy seen métier dañuy wut ay agent lañ yoo xam ne dañuy wut ay nit di leen di leen di leen recruter jël seeni passeport jaay leen man am na koo xam ne sama proche buñ ko def dañ ko ko defoon Arabie Saoudite moom mu dem bi mu demee loolu lu mu defoon édition la ak Mansour Diop Sen TV la. Mansour Diop bu mu mm-hmm. demee ñoom booy dem ñu téye sa passeport. amatoo sañ-sañ ak ak ak dox li la bëgg yow daanaka seen jaam ngay ngay doxee. Mm-hmm. ñoom tànk tëdduñ daw tëdd. Mm-hmm. bu ñuy lekk da ngay taxaw comme gouvernante yi ñuy def da ngay taxaw bu ñu soxlaa ndox nga sotti ndox dañ laa jënd jaam donc bi ngay dem te xamoo ci condition ngay dem kon loolu day nekk loo xam day nekkaat guuta day nekk lu métti loo xam ne Chérif da nga koy dund. Mm-hmm. man benn sénégalaise woo na ma mu ne ma ñu fa nekk ñëpp tey bu ñu amee fu ñu tëdd ci ay douche lañ leen di tëral man juste ñu ngi koy nuyu de passage bu du ma tudd turam tam parce que liggéey bi dafa laaj secret. Mm-hmm. tey ñu bëri bu ñu leen tëral ci ay douche lañ leen di tëral. comme ñeen sam saal damay dafa ngand mm-hmm. ñoom domestique yi te ñi may wax ñu may dégg ci bitim réew. seen domestique yi seen douche lañ leen di tëral ñoom naari bu ñu xëyee balaa ñu di yeewu ñoom ñu commencé nekk seen liggéey heure tëdd ba tëdd la ñuy noppalu tey dund nga ci dëkk naar yow xam nga li may wax mhm. ñoom bu ñu la jëndee dañ laa jënd jaam mhm. confisque sa passeport nga wàcc ñu téye sa passeport tey doomu sénégalais yëpp tubaarkàlla dund nañ ko parce que dañoo am jom dañoo bëgg fu ñu dem di fa liggéey mhm. te métti métti yi ci senegal moo waral tey doomu sénégalais góor a jigéen chérif bu njëkk ba ay ati at ñuy dund ci deux mille vingt trois bi deux mille vingt bi ngay gis ay jigéen ak moyen loolu ñuy dugg ci gaal di dem wala ñu leen di recruter. bu njëkk mhm. ba benn jigéen mosul woon ñeme sax dem ba Kaolack ñu ne da nga dañ la fay affecté nga liggéey. Mhm. mais bu jigéen demee ba ñeme dugg ci gaal jigéen bu ñemee ba ba ne yow. des sax dañuy nekk en état dugg ci gaal gi. bien sûr Chérif yow xam nga li may wax mm-hmm. Mm-hmm. lu mu gàtt-gàtt dund nga Maroc gis nga passeurs yi mm-hmm. donc bu demee ba ñu toll foofu rek mooy métti métti ak ndog-ndog ak ñàkk jot sa bopp ñàkk yëg sa bopp sa réew moo waral lool te tubaarkàlla yàlla dimbal ñu Chérif ñun sunu réew yàlla may nu ñu yëpp am nañu or am nañ zircon am nañ pétrole am nañ phosphate ak lu ma mënta tudd lépp yàlla may nañ ko tubaarkàlla ñun africain yàlla dañoo teral mhm. waaye yàlla def nañ dañoo néew doole mënuñ ko exploité ba tax tey tubaab bi li ñuy dox ci ñëpp suñu seen intérêt la ñuy dox ci ñun mhm. parce que donnaa donnaa la rek dama lay defal lii nga defal ma lii mhm. mais tam man chéri sama boppam la gënal du bañ naa la du dëgg man du ma seet li la gënal ñun buumu ñaam ngi ñun ñoo ko war a daggal suñu bopp mooy lu ñuy def rek ñun nañ ci jiital suñu intérêt bopp mais loolu nag africain yi bëri na ci c'est le commun des affaires pour ñu dina muumu jaamel googu ndax dina yomb muumu ñaameel googu moo waral tey ñun doomu Sénégal ñu tëj ñu mhm. mënuñu tëdd ñaari fan prison génn tubaab bi ñëw am fi ñaari fan ñu ne ay ci na dañ mhm. loolu loolu dafa yéeme Chérif daa yéeme mhm. tey ñii fi nekk yëpp ay doomu jàmbur lañ xowaan doomu jàmbur la mm-hmm. kon moom bu ñëwee ñaari fan ñu tëj ko te ñu ko tëjee nee nañ liñ ko jàppee moom lañ jàppee président Ousmane Sonko moom lañ jàppee keneen jàppee ko keneen mm-hmm. parce que dafa ñëw pour défendre client ñëw na conférence de presse ñëw na ñëw na fekk na ne dañ ko def mandat d'arrêt international parce que ki nga koy def mooy ki nga mën a def surveillance chaque mois mu ñëw euh, signer Euh, taxaw ne la maa ngi ni mais kooku moom ragal naa dina ñëwaat Sénégal te fekk sax ci coobare boppam la ñëwee aw si ñëpp di aw. Mm-hmm. te bu ñëwaat ni mu ñëwee noonu la demaate daanaka. ni mu ñëwee noonu la demaatee xëy na la ko indi woon mooy yeddu coos njoos ba pare daw te njoos na ba pare daw te li mu bëggoon xam-xam na ko. Mm-hmm. mooy dugg na ci prison sénégalais yi gëstu na li mu bëggoon gëstu ba pare te xam na ko. Mm-hmm. te dina gën a yokk ci xar mi karaw. alors dina gën a yokk ci xar mi karaw muy lu am solo euh, ba tey ci jàngatu tolluwaayu réew mi ah Juan Branco ci la ñu tolloon donc moom itam euh, nekk na phénomène maa sànq ñu bëri ngi naan da leen xaw a jaaxal ndax xam naa ni euh, cofeel bi mu am tamit xëy na ci askanu Sénégal wala ci bañ ñuy nootal di jaay nit ñi doole xëy na loolu moo tax mu gën mu sacrifié wu ñëw nangoo dugg si suñu kaso ba tuur fa ay xewal loolu tamit euh, lu dara lu jara félicité Chérif c'est normal mhm. parce que man tey doomu sénégalais bi nekk bitim réew war naa mën a woo tey benn avocat sénégalais bu quitté mhm. dem fekk ko bitim réew plaider ko am na avocat tey maître Ciré Clédor Ly ñu ngi koy nuyu de passage mhm. di ko jaajëfal euh, di ko ñaanal tam fan bu gudd comme yeneen avocat yi ñeneen ak ñeneen ñu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp jàmm Mm-hmm. dañuy génn bitim réew di prélever seen i yu sénégalais yu nekk bitim réew comme ñoo xam ne nekkuñu ay sénégalais. Mm-hmm. parce que loolu réew mu nekk am nga droit dem. tey benn client jël la ne la kaay kat plaidel ma mais waroo dem pour plaidel kenn. ñoo mm-hmm. ñu war laa dem di la jàpp. loolu foog naa ne war nañu mën a respecte robu avocat bi nga xamante ni ak sa client ku mu mënta doon. parce que tey maître El Hadj Diouf jóge na fi dem plaider Hissène Habré mhm. Hissène Habré ñëw na fi mais ay Sénégalais ñoo ko doon taxaw mhm. tey du ñàkk avocat yoo xam ne jóge nañ seen réew ñëw fi mais kenn tëju leen shérif mhm. loolu fee ñu fekk kon histoire dafa war a doon loo xam ne shérif dafa war a rafet dafa war a rafet nettali bi bi rafet ñu suñu démocratie réew shérif ñu war ko sàmm ba kenn du ñaawal deru Sénégalais bi kenn tam Sénégalais bi tey Euh, dafa jàpp doomu réewam torturé ko wala dafa àqam ak yelleef joxu ko ko mhm. kon ñun Sénégal war nañoo xoolaat ñu toog waxtaan ñun suñu biir génnee nit ñi ci prison yi xool nu ñuy construire Sénégal ba Sénégal mën a am jàmm mhm. prison yi moo xam naa dinañ ciy def reportage loolu il faut ñu xool nu ñu fa demee waxtaan ak ñoom itam ndax euh, bu ñu génnee foofu souvent bu ñu waree duggaat ci réew mi day bokkaat ci insertion Sénégal dafa metti socialement dañ leen di xaw a wala ñu xaw daw di leen ragal donc il faut bu ñu génnee aussi ñu am ñu leen di toppatoo tax prison yi itam dafa métti psychologiquement Sénégal boo génnee kaso ne xam nga ni lay xoolee parfois day xaw a ba yow pour nga bokkaat ci askan wi sax day métti ba ci kër bi nga bokk sax lay xaw a mhm. dama am koo xam ne daf ko constaté ba wax ma ko mu ne am na koo xam ne dafa demoon prison yàgg fa mhm. tëdd na fa daanga fukki at mais kooku dafay isolé wu à moment mhm. parce que dafa laaj psychologiquement ñu delloo siwaat la mhm. kon am na ci loo xam ne shérif bu bu demee ba nit yedd am natt boo xam ne duggee na ko mhm. muy dafa rey nit muy dafa def leneen muy dafa def leneen kon boo demee ba am néew doole yow amoo ko la jëlal avocat nga tëdd fa tëraay boo xam ne dafa yàgg war nañ laa mën a taxaw mhm. ci xel wala taxaw financièrement wala taxaw ci boo génnee ñu am fuñ la teg ba nga mën a am loo jàpp nga bañ a tumuranke moo tax souvent ñeneen bu ñu génnee dañuy génne ak yaram bu naqari. Mhm. parce que tëraay shérif wala nekk ci benn bërëb boo xamante ni danga nga fay yàgg loolu day tënk sa xel tënk sa wér-gu-yaram mhm. Mhm. effectivement alors tënk sa xel tënk sa wér gu yaram donc loolu itam euh, ñu bàyyiwaat ci xel bu baax a baax ñi nga xamante ne ñoo la caabi féete ginnaaw ñu leen di ñaanal bu baax ba yàlla nattu bi mu leen teg ba ñu dugg foofu ñu jóge fa ndax jombul kenn comme ni ko maman dafa laaj taxaw sànq waaw loolu dafa laaj taxaw kenn tamit mhm. ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllu yoon war nañu mën a fexe ñi nga xam ne dañ fa nekk am na ñoo xam ne sax par erreur da ngay romb rek ñu raaf la mhm. la amoo ku la jëlal avocat amoo ku la taxaw xëy na say mbokk dañu foog ne sax da nga disparaître. Mhm. Chérif ñu bëri ñu ngi lay wër. ñu ngi lay wër waay ñu ci prison yi ñu bëri ñu leen di wër ñu ngi ci morgue yi parce que sénégalais moo xalaatul nit réer nga sa xel dem ci nga wër. wala ñu tukki sax gis naa ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi leen di wër fii. te ñu ngi bitim réew te dañ leen a tëj ñu leen di wër naan borom dafa génn àdduna wala dafa disparaître wala dafa nii fekk mu ngi prison bitim réew ñu tëj mhm. am te comme bitim réew melul comme Sénégal ñoom buñ la téye rek nga war a mën a am taxawaay woo say mbokk duñ la may nga woote nit ñi xam ne yow da ngaa ti da ngaa nekk ci ay loxo. mais ñu bëri dañuy dañuy rus dañuy rus a woote. wala dañuy ragal waaw ñenn ñi dañuy am kersa tey bu mel ne dañ la jàpp ci drogue wala ñu jàpp la ci yooyu. Mhm. da ngay rus a woo say mbokk. Mhm. parce que sénégalais dañu gaaw stigmatiser nit. Mhm. am bët buñ lay xoolee tam dañ lay ber. d'accord alors.